transport bëri na ay jafe-jafe. tali bi mën naa ne jàmm sax yàlla moo ko yor mais bëriñu ci jàmm boobu. yoon lañ jàmbat ay gàmbeeg affaire ak montage ci yoon weeg ba ci yoon bi kër ay bi dafa métti diggante seno ba ni ngay génn kër ay bi yoon bi dafa métti trop et puis dañ fay sonn dañ fay sommi trop biir gàmm bi ci boppam. 3000 la ñuy fay pour yéeg ci pont aller ak retour. aller 3000 retour 3000 muy 6000. ak yi. boole ko ak samp man moom li ma ci gën a naqari mooy tee daw guddi gi ak teg bagage te buy daw client yi dañuy yore ay bagage bagage yoo teg gars yi la danga koy wàcc. te daw guddi tamit sécurité mais tee daw guddi oto transport tubaab bi mu koy defar da ko defar ay lumière pour muy nit bu ci defanul ay lumière jëru ñuy daw guddi mais comme da am na ay lumière mën nañoo daw guddi. boo bàyyee boo téye oto yi ba fay rek nga bàyyi oto yëpp àndandoo ñii gëmëntu ñii jot nelaw ñu jot ñoo nelaw wet boo leen bàyyi tamit loolu mu demit da parce que ab suba bu ñu téye ba minuit nga baare ko ñee ñëw jur ñu agsi nga yee bàyyi ñii ñu jug ah ñëpp jugandoo ñii day gëmëntu ñii duñ gëmëntu xamal loolu loolu day indi jafe-jafe dañ bàyyi daal nit ñi dem ku ne sa sang yóbbu ko waaw buñ montage boo jub ñu ne defal ndànk def ndànk romb dem laaj nañ changement boo xamante buñ sañoon boog état bi dinañ jàppale changement de parking am ay oto yu baax chauffeur bu ne am sa oto bopp ñu loolu yàlloon nañ ko ay jeunes lañ bëgg nañoo liggéey ñu ngi lancé au message sunu président bees bi Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko mu jàppale wu ak lu transport sonn nañ trop